abdallahi faaxa kulla man abda wa yubdiu xaaliqu saman inna abna abdallahi faaxa kulla man abda wa yubdiu xaaliqu saman alal waras tafaahu man abdaahu rahmata kulli baadama daahu wujuu sahbil kiraami buydat bahda mujaahadatin latil xadat زل الذي أبى العبادة فلا يسأل والماء ما فلا بركة المختار ليس تنخرم ونور ساتم ليس ينظرم أبى إله تعالى إلا إنما منوري الذي تعالى للمصطفى وجهت خدمة سفت بصارة لو داء نفد للمنتقى وجعت ما قد سبا جملة ما لم يرد لي فذهبا هدم ربي بنبي بن ضرر ليتوجى وذاذها الخرر ملكني الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا نفى بخدمة إلهي المعين بقدر ذات العيوب واللحيل إن امتداها المنتهى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فاندلبا لغيرنا نهى اللعين سرمدا وليس ينهونا ولقاك مدى شق على سيتان كون المنتقى سيده ويلاقي مطقى يدعو لدار الخلاس بيسبي واللوم الضلاس طواف بين السعين واللظام طواف من لما يضر الظلام ألمه بين الحميم والضريح ألم بك لا يزال بالشريعة نفاه قبل لسوان الله قدا ولا إله إلا الله إلى سوى مغفر لي يدبه وساقوا إلى سوانا الرب لخيرنا عدانا أدواثدا وتلوجه لخير مفضدا رد مكائد الهدى إلى الهدى باق لينتقم خبل من آدام جلال ربي تعالى هتلا إلى سوانا دررا فانتهلا يقي خلامي ختا والسوام baax kafaani alhida wallawaa ma alladi lahu albaraya wassaman dura nawaani qablu xaadalil aman ma alladi lahu albaraya wassaman dura nawaani qablu xaadalil aman bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa qad ayyasahu minni bila bila taslitihi shay'an minhu ala shay'in minhu abadan inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayasa minni llahu inda jawali iblisa isnadaytu bi awli ayaasa minni laahu inda jeewali ibliisa isna daytoo biyaa wali nafaali xayri laahu qablu findari bi ali badri lu soodi kadari nafaali xayri laahu findakaaru kulla adan lii jarawul makaaru allamani rahmaanu fi safiina bi annani xadimu silmadina barra'ani llahu lada kunaakiri min kulli jalibin ila almanakiri adhabani llahu fi karam bada xablu mubarisi wa anni qalbasha dahani yarrahimu inda dawmi loo bima agnaani tadawmi yasara lilmunaa lada limbal wali man xaada lii maa xaaba an kul wali lii xaada li badril sooda man dardal waasiya wala suuda yaquudu lii haysu akunu laaw tabsiira laa ilaaha illa laaw saaqa li xayri laaw fii maa yomba maa saaqa albiya wa alal janba لله قد وصلت عند القلوى وضانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البهور كبراياتي هي المدهور علمني العليم عند الذاكرات مما يذا وكفاني كافرات لم ينوني عند بور المغرقات داع لخمر أو دواء فاضقات يسر للجميل عند المهلكات ما ذانني عن جالب للمشركات عبات من لي كان عند الواسعات غادا لكالكلير دا وضاتان مد لي الأنوار عند الظلمات وسالمين من كفاني ظلمات شهادتي عند إله إلهي لي سارت عند سوي المراهيم لم ينوني عند بو لم ينوني عند ذوي الخمور سواردا باق الأمور لم ينوني عند ذوي الخمور سواردا باق الأمور طهرني الله لدى أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل عطاب أكرمني عند سوي الإشراك من خادني إليه بالإدراك ناجيته بيا نصير يا ولي كفيتني إبليس عند جيولي sëriñ bi nag làq na ay jagle ci buur làq na ay kéemaan itam yu wóor a wóor sëriñ bi nag làq na ay jagle ci buur làq na ay kéemaan itam yu wóor a wóor bokk na ci jagle wax ak buur yàlla bokk na ci jagle du mooy buur yàlla bokk na ci jagle mbiram lenn du neen waxam jëfam yéeneem itam day tege yoon bokk na ci jagle dëkkaaleeg sun boroom bokk na ci jagle itam amul moroom bokk na ci jagle du faatu mel nun bokk na ci jagle du gis waaju ko man bokk na ci jagle liggéey loo ku ñu xam ko xam ni faatu na borom bee mata bokk na ci jagle xamam ga xam gu wér la njëkk mbindeef yi tey dee su ko lor bokk na ci jagle xamam ga lay ñëwaat ba bis bu mujj ba ak la fi xewaat bokk na ci jagle du wopp bay tawat day wér di sant yàlla buur bi dul tawat bokk na ci jagle du sonn benn bis ngir gàttanug yàlla borom bee gën a fees man danna ni fi layli wan nahaari zaata bil fal jaaru fil jaari bokk ci jagle du xiif ci benn bis ngir yàlla buur moo koy teral muy gën mos bokk na ci jagle du mar du tiit itam du jàq baa muy jaaxle it fu mu a jëm bokk ci jagle lu muy xalaat mu am ci kàttanugu yàlla borom bi ma ta xam allamani manil bariyata fatar wali yaquuduma bi baali bokk na ci jagle itam jinne yi gëm yépp ci moom lañ aju ngir yàlla itam بيتحلق الذين أسلموا من جن عصري دون من لم يسلموا bokk na ci jagle te na képp koo xam ne daa aju ci moom tey soppu kullu muridin bi yaluusu yadaadu wa innahu minal adal mubahadu bokk na ci jagle ku koy soppu itam texe na ëllëg fa borom bee gën xam yabiyadu yawma wujoo asuhada tabiyadu bokk na ci jagle texe di ku ko bañ fa yàlla buur sunu borom bee gën a sañ saqa uman lam yawani xad kutiba fi lawika alladi yufiidu kutiba subhanahu wa wal karim wal hamid wal kullu man lam yawani fa wakamin ñoo ngi leen di fàttali suñu bis bi ñuy defal Serigne Saliou ca Louga di le 21 mai di ci sargal Cheikh Abdou Lahad Touré di ñaan bokk taalibe yëpp teew fa